parce que atum junni ñeenti téeméer ak ñeent ko juróom ci gàddaay gi mbokk li yéenekaay yi xëyee niki tey ji nañu ànd yërandoo ko doole ko yéenekaay bi di bokk suuf li njëkk bi di ñu xibaar ni ginnaaw ba nu ko defee ca bopp gendarmerie nationale jëlee fa ki xam si ni moo ko fa nekkoon jiite ko liggéey ba ñu koy wax Mame Seydou Ndour jamono ji nag Mame Seydou Ndour moom lañu tabb ngir mu jiite police nationale kan mooy dëgg-dëgg Mame Seydou Ndour taxawaay

jëriñ di Ousmane Sonko ma artu di artu jëmale ko ci kéew mi di environnement euh, lu jëm ci yàq nga xam ñi ni jot na sëkk nag ñu daal di bàyyi ak jéego yi nga xam ne ñu koy fas amal jamono ji ngir jëmale ko ci kéew mi di environnement la koy findeel moo di am na benn ndaje moo xam ne jëwriñ di ministre yi ko amal ci lu yàggu dara xam ne kéew mi di environnement bi rek la koy jagleel noonu ko yéene kay ba xam le ba tey

ne dogal boobee nga xam ne jël nañ ko ñi daal ko jële foofu mu nekk yóbbu ko feneen neexu ko ba àgg ci lool naka noonu itam euh, ko jëlee bi di ko ñu di ñu xamal ne moom général Kandé nag jamono ji taxaw na lànk na ni euh, du jëfe benn yoon digle yi nga xam ne Ousmane Sonko moo koy jox maanaam eh, digle Ousmane Sonko moom général Kandé di ko jëfe ba tey indi ay leeral moom général Kandé ci li nga xam si ni taxawaay bi nga xam si ni nguurug Sénégal eh, eh, dafa mel dakkal comme premier ministre Ousmane Sonko ni mu ko waxee wala boog ni mu ko bëggee dakkal bépp accord de passe boo xam ne doxoon ci diggante États-Unis Canada Royaume-Uni ba ca France ci lu jëm ci wàllum sobre di ay militaire ak yeneen yu ñu xamal ñu mën a euh, téye li nga xam si ni moo di mbaalu jokkoo ci réseaux sociaux yi lu ci ne whatsapp telegram signal ak yeneen yu ko ngir mën di ko jëfandikoo di ko mën a bàyyi xel ko dégg di ko mën di bàyyi xel noonu la koy yénekaay bi ngi ci bi ak li nga xam si dafa mel ne xar njëg yi dafa mel ne dafa xaw a tar ba àgg ci loolu noonu la koy yénekaay bi xamle la ko waral moo di boo jëlee benn xar njëg yi daanaka day àgg ci lu tolloog 200 000 francs maanaam Eh, ñaar téeméeri junni jëm ba ñaari million noonu la ko yéenekaay bi xam ne da xam ne ni nguur gi jamono ji taxawaay bi nga xam ne yëkkati na a eh, a eh, taxawaat bi nga xam si ni jël nañ ko ngir daal ko yóbbu foofu la ca ambassade mu di Misso bu euh, Sénégal ba féete ca ci euh, ñaar fukki fan ak bi xam le xam ñu xamal ne boo moytuwul sax moom général Kandji dañ ba ñàkk ci lenn ci ay garaatam maanaam yoo xam ne ay galom yeneen yu ko nut noonu la koy yéenekaay yéenekaay bi xam le ndax lànk la def ni ah, foofee àndul ca dogal boobu nga xam ne jël nañ ko ndax teguwu ci aw yoon enquête quotidien ca la mu xëy tey jii mu di diggante union européenne ak sénégal ci lu jëm ci passe di accord yi nga xam ne moo am ci géej gi manduwaar di bateau yi nga xam ne ñooy bàyyi ko ci union européenne am sañ-sañu napp fii ci waaxi sénégal yéenekaay bi nag la mu ñoo xamal moo di dafa mel ni nguurug sénégal li mu bëgg moo di dakkal accord yi nga xam ne moo am jëm ci napp gi waaye nag yéenekaay bi la mu ñoo xamal moo di loolee jur na ay wax ci diggante union européenne ak sénégal yéenekaay bi tey ah, kaddu Ousmane Koulibaly mi ngi ci biir di ci indi ay leeral ba tey baneenub yëglekaay ak la moo xam ne ñi ngi tey la mu xam le bu jaarul la euh, ko di ci anam bu jaar yoon noonu la ko yéen bi di xam ne la ko waral moo di ca Bambula ña fa doon gis ñoo xam xam ni dañuy jot seen pajoor ñaari yoon ci weer bi maanaam jot ko bu njëkk jaarale ko ci banque bi wala tey nga jot ci weer bi euh, maanaam jot ci jëm ci wàllum euh, xaalis bi nga xam ne yëkkati woon nañ ko jëmale ko ci wàllum arme ki xam si ni moo ji di kéew mi di environnement yéen kaay bi ñu xamal moo di Ousmane Sonko waxaat na lu ci jëm koppar boobu toll ci daanaka ñeent fukk ak juróom ci ay milliards noonu la ko bi xamal moo di ñi nga xam si nii ñooy euh, tukki dem foofu la ca bitim réew di doomi ay réewum Sénégal foofu la ca réewum Turki nag ña fay dund jafe-jafe yu méttee méttee lañu fay jànkonteel mooy ñi nga xam si nii ñoo bàyyi fii ci réewum Sénégal dem foofu la ci ña ngi leen di buntu xatal ji leen teg coono yu méttee méttee métti yéen kaay bi ci yor bi moo ñu ko xamal lépp mi ngi ci biir ah, di ko gën a ba tey banenu yéegle kayak la mu xam ne xamal moo di ci lu ci euh, na ko bor bi nga xam si euh, yu ko nuru jëm ci moo di koy amel euh, yéen bi la xamal bor boobu tolloon daanaka ñeent fukk ci ay milliards Macky daal di wax ne jéggal na leen ko boobu tey ci la ki xam si ni moo di Mamadou Ibra Kane di ci indiwaat ay deret la mu xam problème mooy lu jëm ca bor boobu le ñeel média bi nga xam ne am lay nañ ko jëm ci nguuru Sénégal daal nag bu fekkente dañoo seetaan ba presse bi daal di nërmeelu ci bor boobu le nekk mbir mu a di mbir mi nga xam ne jamono ji mooy fafal naaw di avion bi nga xam si ni moo wàcc woon aw yoonam maanaam saaraan euh, ci mbooy gi noonu la ko yéenekaay bi xam le lu ñu tey de gi la ci gën fasaat ci xibaar lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi di l'Observateur ba tey général Kandé mi ngi ci biir yéenekaay bi beneen yëglekaay ak la mu xam ne ji mi ngi ëlëm di bare bari ci askanu yéenekaay bi moo ñu ko xamal di bés bi le jour yéenekaay bi la ñu xamal a addu di biir ay bi ba tey le soleil moom ca la mu taxaw ci tey jii mu di kéew mi di environnement bi ni ñu koy yàq ak ni ñu ko war a sàmme dogal la bopp njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko ñu gën ci ñu gën cee amub taxawaay noonu la ko yéenekaay bi xamle benn fan njiitum réew mi nee na ma képp koo xam ne doomi réewum Sénégal nga def ci taxawaay bu am solo ngir ñu gën a ñangal ñoŋal moo taxaw moo di njàng mekk njàngale mi jafe-jafe yu méttee métti la ñu cay jànkonteel ndaw am na jéego yoo xam dañ ko ci di amal ginnaaw jéego yi nga xam ne Abdoulaye Wade amal na ko ci Macky Sall amal ñu ko waaye ba tey ji téewul l'école gi des na aw pëggit ci ay jafe-jafe moo nekk loo xam si ne yéenekaay bi dikk na ci moo ko xëyee ci ak yeneen ñu xamal moo a jànkonteel ci indi ay leeral ak 51 milliards yi nga xam xam ne génne nañ ko euh, njiitum réew Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko amal ba tey euh, yéenekaay bi di ca gën ci 51 milliards mi ngi ci ci lu jëm ci ñeel taxaw leen ci tabaski nga xam ne moom ñu dëgmal wala bokk ñu gën a sàmm gi noonu la ko yéenekaay bi xam le Macky Sall mi ngi ci biir yéenekaay bi ci lu jëm ci mbirum ki xam si ni moo di Amadou Ba ni ko ba tey yéen a kaay bi dekk di ci gën a indi ay leeral euh, ci mbiru Macky ak Amadou Ba ak ji mu di l'exclusif ci coow li nekk na loo xam si nekkul lu mu jëfe ca dëgg-dëgg ba tax yéen

tuuma yoo xam ne jépp na ci mbirum arnaque ak vol sàcc ak yeneen yu ko nuru koo xam si ni euh, ñaar fukki at la am noonu la ko yéenekaay bi xam ne ak mbir yoo xam ne amal na ko teefay la jëlee fii ci réew mi àggu fii ci réewum jege wala bokk fii ci kembaar Afrique réew yi réew yi jege ku ci mel ni Guinée ak Mali Mali daanaka seen njëgi euh, jafaan di essence bi boo ko xoolee day toll ci juróom-ñett fukk jàpp euh, ak ñeent fukk euh, noonu la ko yéenekaay bi xamle maanaam benn litre essence boo ko mën a jël waaye nag bu dee fii Sénégal moom njëkk li muy yokkoo jéggi na dayoo noonu la ko yéenekaay bi xamle ndax jamono ji mi ngi ci 990 ana lan moo waral li ci dëgg-dëgg moom la yéenekaay bi direct news di laaj tàggat yaram moo ci topp Baye Ibrahima Touré li ëpp ci yéenekaay ñëwaat nañ ci tey jii moo di na nga ko waxee woon démb général Martin euh, non général Kandé mi nu bu jiite ko yóbbu ko ca Lambiso bu ambassade bu Sénégal foofu la ca réewum Inde yenekaay nag dikk na ci daan ni Bassirou Diomaye Faye dafa wéyal lu fi Macky Sall bàyyi woon la mu ñëw wéyal ko waaye Martin Faye boo moytuwul day mën na ca ñàkk ay garaatam ndax nanguwut a jëfee loolee. général Kandé waa général Kandé. Souleymane. wax aussi Baye Abdoulaye mooy que ni du ay prérogative yu yu amul prérogative yi nga xam ni